asalaamualeykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi bokki taalibe yi nu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen mbalu xaq di leen baal di leen ndokkeel ci jotaay bu tedd bi di ziyaara a Cheikh Abdou Samad Mbakke moom sëriñ Sohaybu ci taxawaay bu am solo bii nga xam ne dana ko amal ci waxtu wi di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor wi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain awnaka yaa muayinu wa bika nastain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di sant sunu boroom di ñaanal a cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi lool te may ko wér te lépp lu mu sumb ak lu mu naan lépp mu ànd kook taalibe yi barke Cheikhul Xadim ñuy nuyu boroom pàkk bu tedd bii nu teew muy a cheikh Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Soy bu di ñaan sunu boroom sàmm ko te may ko ak yàgg ak wér ba mën a mottu yéenam lépp ci liggéeyal lislaam ci liggéeyal sëriñ Touba nu toll nag ci bis boo xam ne naka jekk su ëgsee xel yi danañ daj ne moom sëriñ Abdou Samad baaxoo na di ko dundal di ko fàttali ngir dafa nekk xew-xew boo xam ne benn rekk la ci lislaam muy sosug wooteeb sëriñ Touba xarimu rasul sëriñ Touba sosug wooteem muy tëj xarakatu tajdiidiya li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama di xew-xew bu tombe ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor amoon ci atum ama achesh muy 1301 ca Mbàkke Kajoor di xew-xew bu rëy bu mag boo xam ne làmboona ci am njàngale loo xam ne làmboona itam ci yeesalug lislaam ak yëkkati raayaw diine ak taxawal la fi yonante bi sallallahu alayhi bàyyi woon waree su koy fàtte wenn yoon loolu waral bu waxtu wi jotee rek sëriñ bi di ko fàttaliku ci ànd ko ak taalibe yi ànd ko ak jullit ñi waaye ànd ko ak mboolem euh, télévision yi gis nga daaw ak la ko jiitu lépp euh, fenn fu nekk ñu koy yaatal di ko tasaare di ci waxtaan Eh, xëy na li jamono laajut daje moo waral ren jii da ngay gis ne ci plateau yi ci télévision yi rek nga ko gis waaye daje bi mënula am ndax jamono ji moo tëddi noonu waaye kon nag nu fàttelante ci bis boobu di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di bis bu tedd di bis bu màgg boo xam ne eh, li ñuy dabu ca kazu rajab nga xam ne bu ñëwee ñu ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab bu tax buñ ko waxee daa am lu ca xewoon moo moo ko waral waaye mën nañu ne kazu ramadan muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Ramadan buñ ko waxee rek dafa am lu ca xewoon moo tax la ca xewoon nag mooy woote sëriñ Tuubaa mooy woote gi ci ak bérél ndax ad daawa ilallaahi jëmm mën naa baax ba àgg ca dayo baax am yéene yi woote lislaam di ko def rekk ngir yàlla waaye wa daaiyan ilallaahi bi izni baatu bi izni boobu li muy gàtt-gàtt lu am solo la ci mbir mi lu ci màgg la sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wootewul mukk lu dul ni dafa am ndigal ci yàlla ak yonantam ci woote loolu moo waral képp ku wuyu wootem boobu wuyu na woote bi yàlla ak wooteeb rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku gàntu wootem boobu ñu ko wooteloo itam gàntuwul sëñ Tuubaa waaye dafay gàntu yàlla ak yonantam ndax wa daa'iyan ilallaahi bi iznihi bi isnihi ji moo ko waral noonu it la lépp a mel amut lenn lu muy def mu jóge ci anam boppam waaye lépp lu muy def ak jógam akuk toogam ak yëngutum akuk dalam mbindam ay waxam léppam daf koy def ci ndigalul yàlla ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa nag jamono bi muy woote di feeñal woote mbii fekk na am na fu jamono toll tolluwaay bu lëndëm tolluwaay bu tar boo xam ne dëgg dëgg dëgg mënta ñàkk aji yeesal ju taxaw yeesal ci ak farlu budul loolu lislaam ju ràpp moo fi nekk wala déedéet lislaam ju dee kenn ci taalibim yi waxoon na ko sëñ mat jow paxa wa zaaka allazi qad jaa wa diinu mayitun fa axyaau shaxsan fi l amaakini maashiya nee na sëñ tubaade mooy koo xam ne bi mu ñëwee fekku fi sunna su ràpp mu ko yeesal wala diine ju ràpp mu ko yeesal waaye diine ju dee ju aaja dekkal la fi fekk waaye ci farloom ci taxawaayam dekkal na ko ba mu nekk jëmm juy dox di dem ci gox yépp nga xam ne yeesalam euh, nekkul yeesal bu ñu bloqué ci benn barab waaye dafa tasaaroo ba àgg ci gox yépp te loolu mooy nadaafatuhu kulli min alaxwi tahërat wa sunnatuhu inshaa rabbi ubayinu o bayinu jooju moo waral fi mu ne woote sëñ Tuubaa àgg na fépp amul fenn foo xam ne àggu mu woote ko ci jamono bu lëndëm boo xam ne gox bi mu jekki di fa woote muy kajoor jamono boobu li ñu gënoon di dund mooy dammeel yi ñoo fi nekkoon buur yi ñoo nekkoon ci bawal wala ci saalum teeñ yi ñoo fal woon ci bawal dammeel yi ñoo fal woon ci kajoor ñu séddoo pàkki réew mépp am ay xew-xew yu bari yoo xam ne ñoo xew ci te loola la nit ñi gën a jox yitte loola nit ñi gën a jox bopp daanaka jamono bi tolloon na foo xam ne ku nu woo daanaka soo wuyewul sant buur rek defe nga ne daanaka amoo ndam amoo wuyu amoo positif nga xam ne noonu lañ ko daan defee bu ñu wooyee nit rek mu ne nangam daal di wuyoo sant buur mbir mi demal na ba toll foofu lislaam tumuranke tumuranke gu jéggi dayoo te li ñu dese woon ci tasawuf ak as néew dafa am tasawuf bu mu doon lu ñuy wax tasawuf al baghdadi yi mooy tasawuf bi nga xam ne moo gën na not ci àddina bi gën a na yaatu ci jamono bi sëñ Tuubaa yi woote boobu tasawuf daa topp wàllu ruux al bu'd ruux yi rek la topp wàllu wàllu topp nga xam ne day bëgg jël nit rek def ko malaaka waaye dootul doon keneen ku dul malaaka rek mooy tasawuf wàllu fi sëñ Tuubaa fekkoon bu fekkee geneen wàll ga li ëpp ci philosophie di ay bindkat yu bari yoo xam ne bind nañu ay xam-xam yu bari ci weddi yàlla ak gën a dëgëral wàllu matière ba li ëpp ci nit ñi gis-gisu tubaab yi rek loolu lañ gis mooy daw dëgmal àddina ak dajale jumtukaayam loolu nag diggante bu xat la boo xam ne ngir samp fi dëgg dëgg lislaam dellu siwaat ko ci anam gi ko rasulullahi ak i sahaaba mbayi woon loolu dana laaj jihaar ju réeréy moo tax sëñ bi daana wax ne mbir mi de tilim na tilim goo xam ne laaj na póotkat bu sawar ak saabu bu rëy te moom mooy póot kët bu sawar bi te it moom moo ngàbbu saabu bu bi ndax mbir mi àgg na foofu ci ak lëndëm loolu moo waral mu taxaw nag xam ne nit ñi kenn mënu leen a teg ci aw yoon lu dul ni da leen jàngal yar leen ñu fàttaliku nag baat bi ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox mu bàyyi ko ci boromam ak baat bi sunu borom joxoon rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy ñaari baat yoo xam ne day mel ni ñaari peri wurus benn ba ñu sànniwoon ko ca penku ñu fore ko fa di ca wax seekal yu yàgg waaye benn ba ñu fore ko ci sawu muy bii ñu sëñ Tuubaa andil mooy diggante jàng ak yar rasulullahi benn baat lañ ko jëkk wax ci xaaru ira muy rabbi muy iqra iqra lañ ko wax sëñ Tuubaa nag rabbi lañ ko wax nga xool diggante iqra fañ ko ko waxee ak fi ñu ko waxee rabbi te ñaar yooyu ñooy ñaari tànk yi taawu diine waxtu woo xamee ne benn tànk am na ci gàllankoor diine day mabbu jëm ci ak paralysé day màbbu dellu jëm ci ak dellu ginnaaw mooy diggante jàng ak yar kee dañ ko ne dañ ko ne jàngal ndax pénc mi ñu ko yónni woon jamono boobu am na fatara diggante bu yàgg boo xam ne wax yu wàccul sukkandikuun ci jenn diine arab yi gëñoon nañu am yonante jooj jamono jooj jamono jàng rek lañ soxla woon faw ñu jàngal leen loolu moo tax iqra lañ ko wax waaye iqra la ca toppitam bismi rabbika te bismi rabbika jooju baatu rabb bi fi nekk boo ko fa jëlee woon turu yàlla woo fa def ci mboolem turu yàlla yi mën na faa rafet ci kaw waaye du fa amee maanaam fa rabb amee ndax ar rabb mushtaqun min at tarbiyati kon jàng ak yar la ñu boole loo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te njàng li ma gën ci afis sëñ Tuubaa nag jamono bi nu ko wooteloo jamono yar la ñu gën a yittewoo joj jamono ndax kenn du wax ne fekk fi woon am njàng déedéet ndax jamono boo xam ne yow bi ngay woote fekk nga fi ay kaang fekk fi ay fóore fekk fi ñoo xam ne ni ñuy def alxuraan àgg nañ ci di di juutal nisif nisif alxuraan nga juutal ko nga xam ne boroon boroon tari faatiha mën nga koo juutal tari ko te doo ci bàyyi dara loolu ak yitte woo mënu ko weesu bu dee ci wàllu xam-xam gisoon nga ñi mu fi nekkaloon niñ ko sonnee woon ak positif bi ñu ci defoon ak njàmbaar gi ñu ci defoon waaye dafa amoon lu lu manqué loo xam ne mooy yuquk lislaam dëgg dëgg dëgg mooy ñu jël nit ki defar xolam ba xolam jag ndax sunu borom subhaanahu wa dafa taxaw benn barab giñ fukki ngiñ te fukki ngiñ yooyu yëpp daf ko daf koo aj ci menn mbir képp te ku toll ni yàlla bu giñee menn ngiñ loola war naa doy waaye dafa giñ ba muy fukki yoon ca fukkeel ba nag mu door a indi menn mbir ni lii moo ma tax di giñ loola mooy wa shamsi wa duhaaha wal qamari isa talaaha wa nahaari isa jallaaha wa layli isa yaxshaaha wa samaai wa banaaha wal ardi wa ma wa nafsin wa sawaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha muy fukki yoon ci ay ngiñ yu bokkul mu ne xadaf laxa man zakkaaha daal ne texe na day li may giñ lépp li ma ci li may li may ci ngiñ mi mooy képp koo xam ne seetal na bakkanam kooko texe na moom qad aflaha man zakkaha waaye torox na dellu na ginnaaw képp koo xam ne boyal na bakkanam mu nekk ci naka sul noona kon sunu borom yittewoo na bakkan yittewoo goo xam ne amul lenn lu jik ab julit lu dul mu taxaw temm ci jàkkaarloog bakkanam jàkkaarloo ak bakkan nag moom la Sëriñ Tuubaa dikk samp ngir fas yéenee jaar ba yeesal lislaam fekkoon na fi ay kuréel yu tudd ay nangam fekkoon na fi ay jëmm yuy woote woo ay nangam lenn lu nekk fekk na ko fi moom sëñ Tuubaa fekk na rek nit ñi mën a daan lu ne nit ñi mën a daan alxuraan wattu ko mën a daan xam-xam wattu ko mën a daan lu ne mën nañoo waane ci lu nekk waaye daan bakkan dal la fekkutoon mu taxaw temm nag ngir fas yéenee tàggat ay jëmm yu mën a daan bakkan moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tàmbalee ko ci environnement bi mu feeñ jamono bi mu feeñ ci wayjur wu bari xam lool ba noppi wuur yi jege ko lool sëñ tubaa histoire kenn mënu koo tudd te tuddoo wuur yi kem ni rasulullahi laale ak najashi ak yeneen ak yeneen noonu la mbirum sëñ tubaa laale ak wuur yi waaye dëddu gi mu leen dëdd woon ak bañ gi mu leen bañoon ak wan gi mu leen wanoon ginnaaw kenn mënu ko misaal te jooju jamono lépp luy taraanga lu mën a defar addinay doomu aadama mu ngi ci loxo yi buur yi te bëgg nañ ku mel ni moom nag ndax ndaw lu ay atam bariwut tem fees dell ak xam-xam booba ñoom soxla nañ ko ndax yooyu wóor ñoo gën wóori tey jii dañoo daan wóor yoo xam ne lu lu man xew soxla nañ ko xam moom tey it buñ ko tegee fi seen wet lum leen jox ci ay conseil dañ ko nangoo jëfe waaye tërewul nag melokaan yi ak defin yi ak ya nga xam ne mooy xew tax sëñ bi sib leen ak sori leen loolu moo ko gënaloon moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo tax moo leen ginnaaw wuute gi mu wuuteeg nit ñi ci gis-gis ci wàllu woowu ba waral na léeg-léeg ñu àtte ab àtte sëñ bi ñàkk ànd ci atte booba waaye boromi teggiin la borom diine la boo gisee al naqdu ji al janibu naq fi fikril xadim yi wallu wàllu li ñuy wax critique sëñ Tuubaa bu la ko day def day tege ci teggiin yoo xam ne tege ci xam-xam boo xam ne day wuute ak ni ñu ko xamee ci jamono juñ toll sëñ bi mën na laa corriger mën na laa jubbanti te te nit ñi sax mën nañoo bañ a xam ne yow lay jubbanti ci wàllu woowu waaye daa seet si rek dal di jubbanti mboolem borom xam-xami jamonoom ci wan ci wan gi mu wan ginnaaw buur yi wan leen ne buurkat deful ku ñuy topp deful ku ñuy diglu ci wàllu yooyu loolu korisi gu doy doy war la naqdu goo xam ne naq al arabi gu doy doy kii war dafa làmbo ay teggin ngir xam-xam bu bari bi neen ci moom ak diine ju bari ji neen ci moom até yu baree bari ñu tural ko it sëñ bi daal koy génne ngir ñàkk ca d'accord ñàkk gam ci ñàkk d'accord it da koo yemale ci boppam ak ñemu sañu jox ndigal ci jooju jamono njëbbaloog Ibrahima ko du Jóob ba mu ñëwee sëñ bi daf ko daf dafa bàyyi ba mu jébbalu mu ne ko loo amee woon ci màngum Samba Sadio demal delloo ko waaye lu jiit muy jébbalu ci moom yoonam newut ci moom da ko bàyyi noonu rek waaye ba mu ñëwee nag ba fa yéene ànd ak moom nag la jaar ak moom ci yoon a jaar moom niki noonu la atteb waaje ca eh, dof ba siifan soxna saak yooyu yëpp ay att yu gudd gudd la yoo xam ne du ñu bëgg a dugg ci wàllu woowu waaye daal ci gàttal ak tënk mooy sëriñ bi corrigé woon na jamono joojee ñi mu jàkkaar loolan ci wàllu xam ngir xam ne xam-xam dafa am sàmm gu ko war a lal xam-xam dafa am ragal yàlla gu ko war a lal xam-xam dafa am jëfe gu ko war a lal xam-xam dafa war a maanaam al ixlaasul amal al ixlaas wa ruuxul xamal dëgg dëgg sellal mooy ruuxuk jëf sëriñ bi teg foofu nag tànkam ba ñëpp tàmbalee xemme mbiram mbindeef yi nga xam ne sunu borom def na ci ñoom tawféex ñu war a jariñoo sëñ bi ñuy tàmbali ñëw ci moom sëriñ Bachiru nee na doonutoon kuy woo kenn waaye nit ñi moom yàlla xiiroon na leen ci moom fu mu nekk ñu fekk ko loolu daf koo misaal ci sébbub lëndëm sébb boo xam ne dañ koo taal ci lëndëm gi faw ay gunóor ak ay naawtal ak lépp lañuy ñëw ak donte dañ cee dal di dee itam ruuxuk sëñ tubaay ni mu réyee ak li li mu làmboo cay sekare loo noonu la doon këfin ak ruux yi nga xam ne suñu borom nam nañuy jariñ ci moom mooy ruu yi nam ma mooy nafa an jazabali qalba kulli faisin fan jazaba qalba kulli fais fan jazaba in jizab googu mbóot la mu suñ borom def ci ruuxam boo ko nee jàkk sopp ko bu waxee benn yoon nga dégg ko wax ji dootu ko fàtte mukk bu la teree dara dootoo mën a def loolu mukk ci àdduna bu la digalee dara dootu ko mën a bàyyi mukk ci àdduna boo ko xasee gis benn yoon képp dootu ko mën a muñ ba faw suñ borom def def ko muy borom melo wu dëgër wu taxaw temm ci diine wu am taxawaay boo xam ne taxawaay bu jéggi jéggi dayo la doon nit ku tumuranke doon xarib xarib ci lépp lu nit ci jox bopp jublu ko sëñ Tuubaa war na loolu ginnaaw jaawastu naasa wa maa fi aydi naasi ila rabbi naas nga xam ne nit ñi la ñuy xantewoo la ñuy daw di ci jëm la ñu gën a yittewoo lépp lu woyof toy yu la fi moom maanaam addina bi daal daf koo def ni dëñu teeñ ni ko suñ Moussa koy waxoon rek daf koo defoon niw fel mbaa ni dë ni dëñu teeñ nga xam ne aw fel ak dëñu teeñ moom faxa sànni rek noonu la sëñ bi jàppoon addina loolu nag tàmbali naa def waral ay gendiku mag ñëpp tàmbali di ko gendiku di ko bàyyi xel warami xam-xam yëpp am bëtu wegeel ak bëtu waggar bu ñu koy xool waaye mu def am tiit mu rëy ci xoli buur yi nga xam ne ñoom lañu ñu moom la séqalan jamono te buur bëggul kenn ko am pouvoir ci wetam sëriñ Tuubaa mu Rasuul loolu gën koo dolli ak dëdd ak dëgër mu sax nag ci wuutu way juróom sëriñ Mor Anta Sali ci njàngale ma daara jooju doon daara ju réy joo xam ne fekk na woy juróom jàngal mbooloo yu bari jàngal ay kàngam yu bari ba jàngal ñoo xam ne lam leen jiitoo ci at sax taxul mu bari ku ci mel ni Cheikh Adama Gueye nga xam ne xaw naa jege ak suñu moronte si lay at fekk na sëñ Tuubaa fekk na si moor di jàngal ñu tollu noonu waaye ci biir njàngaleem woy juróom kat moom sëriñ bi xam nañ ci xam-xamam bu leer xam nañ ci fasaxatu lisaan leeruk làmmiñam xam nañ ci dégg gu muy dégg maanaa xam nañ ci jekk gu mu jekku xam-xam ba li ëppoon ci daara ji mu jàngal leen moo leen di gënal woy juróom jàngal leen loolu bu ñu demee ci euh, taarix dañ fekk suñu Basiru di ko leeral leer leeral gu yaatoo yaatoo yaatu bi woy juróom demee kon wuutu ko ci daara ji lu yomb lay doon ci moom mu tàmbali ko wuutu nag ci daara ji ci anam googu waaye wuutu gi ci daara ji terewul am na lu yëngu ci dënnam loo xam ne ala kulli xaal yëngu boobu faw dana feeñ am na jantub leer guy feq ci xar kanamu sëñ Tuubaa ñeel lislaam boo xam ne faw dana fenk loolu moo waral mu gën a dëgëral njàngale mi ci orienté taalibe yi ñu bañ a ittiwoo xarafu kese boo bindee mbind mu rafet indil ko mu ne lii de baax na rafet na taaru na waaye am na nag lu ko ëpp solo li ko ëpp solo mooy yoon wi nuy jaar ba malayka yi bu nuy wax nga di ko dégg bu nuy jëf nga di ko dégg nga xam ne day jéggi yow mulku bi bëgg laa tarbiye ci malakuur bi ak jabaroot ak la caaju mooy diwaan yi nga xam ne ruux yi malayka yeeg lan bi yaaw yeeg gaañu baax yi yëpp ci loolu lay nekk mu bëgg a jële nit ñi ci dimension bi suufee bi yóbbu leen ci dimension bu koy boobu loolu ay junj ba bis muy woote wooteem bu mag bi fekk na muy jàngale téere bu ñuy tuddee alfiyatu ibnu malik ni ñu ko nettalee muy joxe misaal ca téere ba téere boo xam ne misaal moo xam ne téere ba moo ko andi mu ngi toog ci buntu néegam mbooloo mu bari war ko muy jàngale di jàngale ci grammaire al fi'lu wal fa'ilu wal maf'ul bi ci àtte yaag nañ koy nasabeek nañ koy rafaak àtte la ci aju yëpp waaye misaal mi téere bi indi nag mooy day misaal ne faatimatu yeew na mbote ba rabatat faatimatu al jadiya loolu rek la la téere bi misaal mooy faatimatu yeew na mbote ba léegi sëriñ bi loolu damiram daf ko wax ne ko lii de aw fen la wuñ bëgg a jàngale ak dëgg loolu rek la ci gis moom mu ne lii aw fen la wuñ bëgg a jàngale ak dëgg mu ne waaw aw fen naka lañ koy tabaxee ngir di ci jàngale ak dëgg xaalam ak tolluwaayam nag mayu ko mu jaar foofu mu daal di dagg jàngale mi tàbbi ci néeg bi diir bu niiw mu génnaat tàmbaliwaat darse bi ba ëgsiwaat foofu waaye su ko bëggee wax bëgg ko leeral rek xaalam du ko mayee ci loolu mu tàbbiwaat ci nii bi yoonu ñetteel wa nag fa la jotee ndigalal rasulullahi sallallahu alayhi wa ci baatu rabbi bi mu ko jox rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi darsi faqat wa rabbi kulla waxidin minhum bi maa yaliqu bi rabbi mooy tekki tarbiyal wala mooy tekki yaral wala mooy tekki jubbantil wala mooy tekki defaral walla mooy tekki yéwénalal mooy rabbi asxaabaki bil himmati yaral sa àndandoo yi ci himma mooy yitte yitte mooy pasteef ndax ab taalu bi du mën a am cër ci yàlla mukk te amul yitte du man a am lim bëgg ci boromam mukk te amul yitte faw day am yitte ci boromam yitte ji nag day doon jànn du doon ñaar day nekk jën yi mu soppi ko jëmale ko ci boromam subhaanahu wa taala bu ko defee leneen la ci des lépp mu bàyyi ko ca gannaaw léeg-léeg nit jëbblu ci moom daf lay wax ne adduna bul fi soxla mbaar waxuma kër waxuma soxna waaye adduna bul fi soxla mbaar la lay wax ngeen xam ne boo fi soxlaa lii soxla falaa rek sa sa du dootu mat mu bëgg yitte ji nag mu jëmale ko suñu borom képp subhaanahu wa taala loolu mooy rabbi ashaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi darsi faqat bu leen tarbiye wala bu leen yaree jàng dong dong dong ndax jàng dong bu fekkontoon ni solution la wala jàng dong mën naa defar société bi jooju jamono sëñ bi du fekk société bi yàqu ndax fekkoon na fi ay xaat yi fekkoon na fi ay boromi xam-xam fekkoon na fi ñu jàng fekkoon na fi ñu xam lu baree baree bari waaye téerewul société bi di gën di yàqu jikko di gën di yàqu di gën di dellu ginnaaw jafe-jafe di gën di am waaye bil himmati walaatu rabbihim bi darsi fa xat bu leen yar ci jàng dong dong dong waaye loolu sëriñ bi bi mu jotee ndigal loolu di ko wax daf leen ko wax ci anamu ñeewant anam gu teggiinu anam gu taaru gu dal goo xam ne waroomi xel ya danañ xam lu mu bëgg a wax ñi yàlla namm ñu jariñu it daañu xam la mu bëgg wax mu daal ne képp koo xam ne day danga nga fee ñëwoon ngir jàng dong man ngaa dem seeti ña xeetoog loola lañ naan sëñ bi tas na daara ja dee tasul daara dafa dafa dafa orienté nit ñi ne leen ku fi xam-xam képp indi woon muy jàng demal seeti ña xeet ak loola mooy ñi nga xam ne tafsir ay jumla ak firi ay baat képp ci lañuy ñuy nit ku fi loolu indi mën ngaa dem seeti ñu xeet ak loolu ndax loolu bari nañu ko mën a def waaye képp koo xam ne nag yoon wii nu bëgg aw xemeem nga ci aw ñëwal nu ànd dem baat boobu nag ba mu ko waxee ba noppi dafa daal di dellu ci biir bàyyi leen ak seeni xalaat mbooloo mi def ñaari xaaj am ci ñoom ñoo xam ne dañoo gise daal waxtaan ne nun daal li nu taxan a jóg mooy lii kon gannaaw defatu ko nan dem ñenn ñe ne nun daal xam nañ ko ci ak bëgg yàlla xam nañ ko ci bëgg yonante bi xam nañ ko ci njub ak sell goo xam ne lum nu woo war nañ ko ca wuyu ndax ku ne ci nun bëgg naa mel ni moom ñooñee dem wuyu ko waaye ñooñe nag ñu niiw la loolu la euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Diop na di wax ci téeram naan fa zahabal jullu wa baqiyal xull nee na lëg la gën a bari dañoo dem keroog waaye la gën a niiw ñoo fa des fekk toujours li gën a niiw mooy li am solo sëñ bi qualité bi la yittewoo waaye soxlawul quantité bi ndax ku dajale mboolam dof ku ku ñib ku dof ku ku wér rek day ñibbi ku wér day ñibbi sëñ bi moo tax dajale mbooloo mu tuuti te def ci ñoom ak ak te def ci ñoom yàlla def ci ñoom ak nite teg teg leen ci yoon moo ko gën a dajale mbooloo mu baree bari budul jeex. mbooloo moomu nag àndan ak moom di kuréel bu néew daf leen a dal di sóob ci li ñuy tudde ak tarbiya ci anam yi yii ak Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana nee na la ëpp ci lam leen doon defloo jamono mooy zikru moo ñu sax ci laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah di ko wax lu bari te seeni làmmiñ du ci tayyi du ci toqi seen saa muy guddi yi ak bëccëg yi ñaareel bi it lu bari ci ñoom mu leen di sant xiif ñuy bari ñuy bañal bañ bañ di lekk lu bari sëñ bi ku bañoon la kuy lekk lu bari daana wax ne murit ab murit day bu reggee malaaka yi dañ koy jooyoo ni nit ni nga xam ne bu nit faatoo ci ab dëkk nit ñi dañuy jooyoo bu ab murit reggee noonu la ko malaaka yi jooyoo noonu la ko malaaka yi jooyoo mu tàmbali di leen tarbiyee ci wàllu xiif moom sëñ bi di leen tarbiyee ci wàllu wéet wa sawma li sharhi wal xumuli li mubtaxi shuhrati wa tafdili bu fekkee daa gis ku bëgg àddina bu ko jàppee da koy wéetloo dootu gis kenn bu dee daa bëgg ko daa gis ku bëgg feeñ daf ko daf koy giimal ba kenn dootu ko xam bu dee ko bëgg lekk daf koy tàmbalee xiifloo di ko xiifloo noonu lay xame ayib bi ruux kenn ku nekk nan lay jubbantee sa bakkan ba sa bakkan tege ci yoon mu sóob leen ci yoon woowu ñu boole ko nag ak liggéey ngir mën a fecc seeni cër tarbiya googu muy tàmbali taarif nag ay xasida yoo xam ne xasida yi da leen di dimbali ci loolu wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaaliin li wajhi rabbi nga xam ne xasida yi jàng gin koy jàng daf leen di dimbali ci loolu waaye boo seetee ama ashash ama bashash ama jasashin ama dashashin ama hësashin ama washashin ci diirub juróomi at yooyu képp ci biir juróomi at yooyu yeggal nañ leen ci dimension boo xam ne kenn ci ñoom mën naa bàyyi koo fa gën a sori ci njobaxtal daanu fi suuf te du ko wàññi dara kenn ci ñoom mën naa yuuxu dóor boppam ci dara te ko wàññi dara kenn ci ñoom mën naa fekk ab taal mu taxaw ci muy takk te du ko wàññi dara kenn ci ñoom mën naa yenu ñulug buy tàng di ko naan te du ko wàññi dara kenn ci ñoom mën naa jàpp sawara fa mu gën a tàngee te du ko wàññi dara ñu tàmbali feeñal yooyu ñuy am ci ñuy dox ci siiñu sakket yi nga xam ne buñ daanoo dañuy dox ci siiñi sakket yi di jàll loolu nag doon ay jëf yu tumburanke yoo xam ne xamuñu ko woon ci réew mi jëf yu tumaranke la waaye dimension boobu mu leen yóbbu mu nekk xaal yoo xam ne kenn mënu koo lijjanti daanaka ñi bokkul ak ñoom gis yéen tuddi leen ay dof xam ngeen ne diggante murit ak dof moom yaari baat la yun yàgg taqale taqale yàgg yàgg yàgg mm-hmm. ba jamono jii toll sax ñaare toujours ñuy wax baat yu mel noonu la murit dof la fekk ne ki nga jàppe dof mooy ki nga xam ne day def loo xamul rek wala muy def loo mënul waaye dimension yooyu mu leen àggale kenn ku nekk ci ñoom dem ba toll foo xam ne ci boromam séddu nga bu wér a wér a wér fatxu ñëw na kashfu ñëw na faydu ñëw na lépp ñëw na te loolu lépp ci barkeb loxob sëriñ bi ak ak tërbiyam ak womat gim leen womat ak di leen ci yoon moo ko may loolu ku mel ni Cheikh Adama Guèye danaan jekki ba yàgg mu téen ne nang ne déglu leen yàllaa ngi wax déglu leen yàllaa ngi wax te bu nee déglu leen yàllaa ngi wax diir bu néew bu siggee day wax ne nangam dana xew barab sangam nangam dana xew barab sangam kilifa sangam dana génn adduna diw dana faatu diw dana nangam te yam wax yëpp noonu rek lay demee kashfu bi mayan na ko daana jekki ba yàgg mu ne diw dee ngi ñëw bawoo barab sangam yor nangam ak nangam amoon na soxna su suñuy wax soxna jama daana xëy na soxna jama yokkal ñurug bi diwa ngi ñëw yorom xar te diir bu néew danañ seen diw moom ak gàtt moom xar dikk bu ñëwee rek ñu def ñurug bi àggoon na foofu ci wàllu wow kenn ci taalibeem yi boo ko toppee noonu benn par benn kenn ku ci nekk demoon nga ba am dimension boo xam ne waxuma faj aajo waaye làmboo nga wilaaya ak baatin ak xam-xam ak man-man ci yàlla boo xam ne kenn mënu ko misaal ci barkeb sëriñ bi sëriñ bi ñoo ñëw nag la jël samp leen ñu nekk ay échantillon xam nga échantillon yooyu ñooy ñi nga xam ne nag ñoo koy ñoo koy wareel ab liggéeyam wali qaada ahbaban bihim azhiru nuska ndax bu Cheikh Adama Gueye nekkee fee Cheikh ma baabu nekk fee Cheikh ma Samba Diop Sam sëñ Daar Ousseynou Ndiaye Cheikh Issa Dieng Cheikh Ibrahima Fall nga toppi ko noonu kenn ku nekk fa mu nekk nga xool na ak mayam toll ak na mbiram defaroog nam jege faw ñàkk nit ñi dawut si ko moom sëñ bi loolu nag moo déclassé mbir mi dëgg-dëgg dafa teel a def nag ay ay ay ay yoo xam ne yu doyo doy kiimaan lañ moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu mat liñ doon tàmbalee jommal mboolem réew mi aw turam daal di siiw ci diggante boobu siiw goo xam ne bëtt na mboolem gox yi mu nàmm xalimaam nag ci ndigalul yàlla tàmbali bind di leeral lislaam te yamusu fi sunani xatil funuun sunas rasulullahi salaa sallam li ci réeroon lépp sama xalima dana ko jeexaat ba dajale ko waaye lépp loo xam ne lu ci rappoon la sama xalima dana ko yeesalaat lil mustafaa nawaytu ma yu jaddidu sunnatu al garra wa inni ahmadu wa jaddidu sunnata na kaada tumiituha du jën xabat an kaada nga xam ne xëlimaam lépp lu teqali ko wan dajale na ko waaye lépp loo xam ne tasaaroo wan na itam takkaat na ko waaye lépp loo xam ne suul wan na génne wat na ko mu tàmbalee résumé lislaam nag ci anam goo xam ne day neex a day neex a jàng boo gisee muy wax ne laakinama kutubuhum li tuuli zahida fiya jullu haasal jiili téere gaa ñi jiitu woon dey xam naa guddaay ba tax na lu bari ci maas ak jamono dëddu nañ ko woon ko ginnaaw ndax guddaay ba daa ngis téere boo xam ne foo takk guddaay bi rek weesu na ko sëñ bi ñëw indil la ko ci anam goo xam ne téere bi day gàtt lool waaye boo ko xasee mokkal lépp lu nekk ci téere bi da ko mën a am bu ñu nee xaatimatu tasawuf nga jël masaalikul jinaan fekk ca la ca xaatimatu tasawuf waaye fekk ca leneen loo xam ne amul sax foofa bu fekkee ne la Euh, al bidayat wa nihaaya nga jël mu nawir sudur wala wala wala mu layyinu sudur fekk ca loo xam ne niwu ci bu fekkee nee nañ la umul barahin bu limaam si nga jël téeréem bii di mawahibul qudus fekk ca loo xam ne niwu ci bu ñu la waxee wesaru dal xaaj wa nga jël naxjul xadaay xaaj fekk ca loo xam ne niwu ci noonu la lañu tënkalee ba nga xam ne am jàngalem day gàtt gàttin woo xam ne day fees del ànd ak maanaa nit ñi mën a xam xamin wu gaaw maanaam daa mel ni ku yàkkamti li muy def maanaam jamono ju cate ju lëndëm lu bari taxaw di xëccoog moom aw nitam daa mel ni ku yàkkamti li muy def nga xam ne daar daar day def ci nit ki li war a def ci moom wa min ajabi l ashyaa'i anna muridahu iza jaahu lillahi bil xaq yuusalu nee na li gën a li ma gën a yéem ci mbirum sëñ Tuubaa mooy moom bu ab murit ñëwee day gaaw ci moom day gaaw ci defar ko nga xam ne defar ki dudul yeex dudul yàgg day day profité rek def ci moom na muy def ci moom rek mu jeex kon da ngay gis ne yeesalam ci diir bu niiw bi mu fi def ak ni mu tëdd ak ni mu demee lim def ci diine suñ ko yoroon ci atam ngay wax ni am na junni bi at door a buur da ngay jàpp ne sëñ bi dund na fi junni at ndax fonction yi occupé yëpp benn buñ ci jàppoon rek dañuy wax ne nit ki mënu ko réesir cinquante pour cent képp ci biir téeméeri at waaye sëñ bi da ngay gis ne lépp daf koy matal ci diirub at yu néew at yu xat nag yoo xam ne mayuñu ko mu am liberté mayuñu ko fu ko neex dem mayuñu ko fu ko neex tukki mayuñu ko mu takk dem ñu occupé ko téye ko ci anam goo xam ne dañ koo bloqué doyul ñu jël ko tumurankeel ko te loolu lépp ngir bloqué ak ab waateem rek moo ko war a lam waaye booba fi daawa bi di jaar di jàll dafa nekk bunt yoo xam ne ubbi ko ba noppi ubbi ko na ba noppi te mëneesatu koo sakkati loolu échec la bu réeréeré ci tubaab yi waa ji yebalan jolof mu yoroog jur di sàmm di ñëw ci kër sëñ bi te fekk raj la woon maanaam nit la kuy gëstu mbirum sëñ bi ba mu delloo rapport bi leen yóbbu dañ leen xam naa lu man xew de bu ngeen yóbboo gaaw ci mbiram ndax ni ma gisee mbiram daal mooy Ahmadou Bamba yu baree bari la tàmbalee crée moom ci kaw suuf si bu ngeen yeexee rek réew mépp dana doon ay Ahmadou Bamba ndax booba li ne ci moom sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul tàmbale na ko wàll muritam yi anam goo xam ne benn murit bu ragal ab tubaab amut benn taalibi boo xam ne ragal nga buur amut benn taalibi boo xam ne xemmem nga la ci loxool buur amut benn taalibi boo xam ne bëgg nga daray adduna amut kenn ku ne yàlla képp la yàlla ñu leen di lor ak di leen sonal di leen yeew di leen dóor nit jébbalu nañu tas këram nit jébbalu na nijaayam nangu soxnaam sam ko mayoon nit jébbalu nañu dox gannaaw lakk ay saqam nit jébbalu nañu dóor ko ba mu faatu ca dee dee dee ca biir dóor yooyu lu nekk am na ci di jébbalu njàmbat yi di bari ñu di ko ko wax sëñ bii dëniru rek am bis boo xam ne daf leen wax ne bu ngeen demee ñeneen fere yi képp koo xam ne dafa ànd ak nun ngir sàkku àjjana képp na dem nu dem koo xam ne daa ànd ak ngir ragal sawara dong na dem nu dem waaye koo xam ne daa ànd ak nun ngir yàlla dong rek te yàlla tax koo jóg na dem daan saxaaba yi ñooy seen i bàyyi ci diine na roy ci ñoom te rey nañ leen génn leen seen i kër nangu seen i alal te ñooy seen i bàyyi ci diine loolu mooy yëkkati itte yi bi yi loolu baat la boo xam ne dafa gësam li desan ci xol yeekas ñëw ci xeemem-xeemem àddina sànni ba mu set wecc mu yëkkati nag itte yi yi jëme leen nag ci bëgg yàlla dong ak topp yàlla mu daal di wax ne danaa nag te woote bi kat dama koy jaarale ci xam-xam yi damay woote waaye woote bi dama koy jaarale ci xam-xam yi te képp koo xam ne jëfandikoo na am xelam danaa ko wanu yoon uri li waj i maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila képp ku jaayante dëggal te jëfandikoom xelam danaa ko won aw yoom ndax hadani allahu fala udillu wa an sabilillahi la udillu yàllaa ma gindil boppam du ma réer te yoonu yàlla du ma ci sànk kenn du ma réeral kenn te képp koo xam ne topp na ma danaa la teg ci yoon te ndimbalul yàlla fi man mii la tey jii ak bu ëllëgee nag wala yow ma billaahu yu'in man sha'ahu wa fi ghadi ku yàlla bëgg dimbale tey wala mu bëgg laa dimbale ëllëg daf lay xeer ci nga ñëw ànd ak man na Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul loolu tax nag bindeef yëpp tàmbali di ko di ko dëgmal na na ko sëñ Moussa Ka waxoon Kajoor ak Bawal Njaambur ak Fuuta ak Jolof ña ngay walwali jëm Mbàkke booba ma nga Mbàkke jàppoo xëlëf te ñoo yey ne mbàkke aaya bur yàlla moo ko def ku dof bay gannaawal bamba nee leen ko moo di dof bu tuubul baree dem naari jaanam yi matt ko loolu daroon waree wooteeb sëriñ tubaa xadim rasul dayoo bi mu am ak tolluwaay bi mu am ak woote gi ko yàlla wooteloo ak leneen ci moom te it xir gum xiran ci def ko ci nit ñi tax na daana wax ne ay bu nit ñi xamoon li fi man kon duñ sàkkuri dara xanaa daw sàkku si ko rek xam naa de réere ko rek moo waral ñuy dem di sàkku ji leneen law alima annaasu maa huna la baadaru ila talabihi bu ñu ko xaman rek danañ daw sàkku si ko ndax lépp luy waral texek ëllëg luy yiwu aduna ak yiwu alaxira lépp suñu waroon def na ko ci man wa man arada al xayra fi kilta yi daari ni fal yalus bii képp koo xam ne bëgg na aw yiw ci àdduna ji nu nekk ak alaxira na daw ñëw wéeru ci man loolu moom moo saña a wootee noonu moom sëñ Tuubaa Xaadimu daal xam le ne woote bi itam ci digalul yàlla la ba tax na bépp murit boo xam ne ñëw na wéeru ci man dana texe kullu muridin bi yeloo si yasaadu wa innahu min al asa mubaadu al aza baat la boo xam ne waxtu wu ne mu koy baamu ci mbindam xam danañ ci ñëw lu gën a bari incha allahu ëllëg waaye murit bu bëgg mucc ci loolu ñuy wax xam ne sa ruux day set wecc nga tege ci yoon sëñ bi ne boo ñëwee ci man rek suñ borom dana la soril al aza wa innahu min al aza mubaadu daal di woote wooteem bu barkeel bii nga xam ne ci weeru koor la ko woote weer wi doon weer woo xam ne sëñ bi yàlla defal na ko ci lu baree bari luñ xam ak luñ xamagul ci la woote yoon wi moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci la jot ndigal ci woote ko ci la jote wird al maxuus ca gànnaar moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci la taalif téeréem mbii di wakkaan xaqan ca gànnaar di tinul jullit ñi musiba yoo xam ne waroon na agsi ci seeni kaw ba du mën a ñëw ci seen kaw ci la am yu bari jot na ci ma maxuus ñaari yoon xad jaani suulu min rabbi bi takraari laa siyama inda biiril xayri jaraari nga xam ne jot na ko aw yoon jotaat ko yoon waaye lépp ci biir weeru koor wii ci la ko weeru koor yi fukki fan yu mujj it ci la li'tikaaf ci daarul quddus janloo fa ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaayante ak moom yonante bi gaaral ko nattu bi mu nangu koo tegoo ci ngor ak fit ak jom ak donte bakkanam da ciy des bur yàlla daal di signé jox yoneen ba mu signé gaaña daal di jiital bamba lisaanu xaal daal di waxanteeg bamba ca saar yusuf mu teñu yan ba yan ban yan xutbu yi ak lab daalee te attunuñ ko moo ko fab raw gaaña da ngañ diwee ca tawatul balaaya suuratul axwaan yi laam ciy laaya sëriñ si naaqis lañu naaqis mooy lu matut bambay kaamil mbër yëppi suq lañu bambay kaabal man chakk fi zalika fal yu jarribi wa man yu jarrib baa abi taxarrubi mu teg ci ne jaayante nag yàlla ci lutul xacc rijaale seer nañ ko mos a sajj kon loolu day wane woote sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul barkeel gi mu barkeel ba adduna bépp foo teg sa tànk tudd Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasul seen fa ay taalibeem te ñu mel melokaan yi gën nag suñ borom defal na leen taw feex googu mooy melokaanu njub melokaan woo xam ne saxaaba yi nañ àndewoon ak rasulullahi rek lañ ànd ak sëñ Tuubaa Cheikh Abdou moom sëriñ Chouaïb bu xam li bis bi lamboo te xam ne bis bi ci la lépp defaroo buñ ko ñàkkan ñàkk lépp buñ gàntu woon woote sëñ Tuubaa dara du baaxati ci li des jamono loolu xam ne bis bu bis bu bu ñu koy fàttaliku waaye bii bis benn bu ko gën a yeyoo fàttaliku amul ndax kat atum julit ñi fàtt tënkuñ ko ci lu dul gàddaay ak rasulullah mooy daa génne makka dem ma madina gàddaay ngir taxawal lislaam kon boo xoolee yoonu murit bis bi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa woote ne yàlla moo ma wooteloo kuuy si sa jaan wàcc na yàllaa ma loo ma woote ku gàntu sama jaan wàcc na bis boobu yaakaar na bis bu gën a yeeyoo fàttaliku bis boobu amul fenn kon sëriñ bi fàttali gi mu koy fàttaliku di ko ànd ak mbooleem borom xam-xam yi di ko ànd ak mbooleem taalibe yi di ci gën a xeertal nit ñi ci mbir boo demee ba mu ba ca kanam day aaja nga dell siwaat ci cosaan la day aaja nga del cosaan la buñ del si cosaanul yoon wi ak li ko sos rek suñu borom dana nu gën a dimbale defal nu tawféex ban gën a mën a jariñu ci sëñ bi noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér defal ko tawféex defal ko saada wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.